askanu Sénégal mi ngi waajal tournoi bu am solo ci nga xam ne kat mooy dund ci wàllum politique ba tax na kat lu yées benn at ñi nga xam ne kat ñooy électeurs yi la war nañ tànn ki nga xam ne moo leen war a njiit ci at mi di ñëw maanaam ci atum 2024 rendez-vous historique boobu nag gis nañ ne mi ngi ci yaa waxtaan yu méttee métti lu ci mel ne acteurs politiques yi waa société civile ak ñi nga xam ne kat mooy kilifa diine yi kilifa aada ba tax na yi daal acteurs yi nga xam ne kat ñoom la loolee daal di soxal ku ci nekk daal ma ngi cey jur ak mbii cog après campagne bi nag candidat bu ci nekk daal yaa ngi sa bopp rek yaa ngi waajal say ñooñ ba tax na coppite bi ñu yaakaar kat ci nga xam ne moo ci donkaasi gile loole kat ñeel xam ne ñooy pouvoir bi ak kuje gile waaye yaakaar daal ñoom ñaar ndax seen wéyukat du neex ndax giseen ne li nga dafa bëgg a conserver nguur gile keneen ki nag moom bëgg cee foqati waaye li nga xam yi mooy xam ne moo nar a lëndëmal xel waaye woote ci nga xam ne kat ñoo bëree bëri gis ne ñu ngi koy woote ci nii màcc na le yaakaar ni kat jàmmaarloo nan am ñi nga xam ne ñoo nar nasaxal jàmm ji yi fii ci suñu réew wa waaye ñu gis tamit rek am ci ay xalaat yoo xam jàpp na teguwul fenn ñoo xam kat ñoo bokk ci ko jéegi ñiy yaakaar ni daal ay salafiste lañ ñi ay intégriste lañ am ñoo xam kat wàllu méttital askan rek moo leen tax a jóg ñii nag jàpp ay terroriste ñii nag moom bëgg indi révolution tëkk bi lee waaye ba tax na kat lañ ci nemmeeku daal mooy ay teg loxo yu ñu teg loxo ñoo xam ne jàpp ci ku jéegi lañ bokk ñii wooyu leen ay force la waaye ñu gis tamit daal am ñoo xam wootee ngir ñu gën a dëgër ndax jàpp ne kat yi nga xam ne mooy nguur gi moom ci boppam mooy noonu ñëpp waaye ñi nga xam ne ay kilifa diine ñoom ñi ngi am ay euh, kuréel yi nga xam ne ca la ñuy sukkandiku di ci woote ñi jaaroo ciy gàmmu ñi nga xam ne bi am ñoo xam ne tamit jàmm leen tax a jóg waaye tamit di woote ñu ràngoo ay valeur nga xam ne loolee moo tax daal mu gën a suuxat li nga xam ne mooy askan wi le acteurs yi nga xam ne ñoo bokk société civile ñoom nag seen biir waxtaan war na jur waaye waxtaan bi wérte wóor loolee ñeel tamit euh, kujje gi gile ndax gis ne ay élection xam ne taxul dara raxul dara loolee daal la ñuy xaar ci ñoom waaye gis nañ kat débat bi nga xam ne daal moom lañ sulli am na ñoo xam ne dañ ciy gis daal loo xam ne day a lëndëmal xetu askan wi yaakaar ne kat débat la bu nga xam ne teguwul fenn ba na kat ñëpp ñu ngi koy xaar yaakaar ne kat am ne am na ko ñuy xaar ñetteel bi lee waaye lees mën a daal ci waxtaan bi nga xam ne sumb nañ ko ñeel ci wàllum ñangi mekk njàngale mi ci wàllum wér-gu-yaram ci wàllum liggéey ci lëkkaloo bi dox ci diggante cour seen bopp war nañoo daal di jaajuwaat xool ne kat li nga xam ne laj sajj nañ ko foofee ñu mën faa amit njariñ maanaam ñu fexe daal ba am ci kat ab réussite waaye anam yi nga xam ne moom la ñu war a delluwaat ginnaaw xoolaat suñu bopp loolee ñeel na ñëpp buñ ko deful rek ñu dëgg ci nëgg sarax gu nga xam ne daal dana metti lool waaye tamit waajal élection 2024 bi ñëpp la war ndax gis na kat ci wàllum politique nar nañoo kat te loolee dañu topp kat suñu giiru dund kon ñu bëri yaakaar ne li nga xam ne kat mooy lëndëmal xelub askan wi loolee kat war na fee jeex ndax buñ deful lank rek askan wi ñoo ñoom ndeysaan ñoom ñoo war a delluwaat yaakaar ne politique da nga koo def ngir sa mbiri poos wala sa mbiri bopp